muy eh, addi yi nga xam ne moom dajale mu jóge ci tool yi àllarba ak addi yi mm-hmm. dugub mm-hmm. mu toll ci man fanweeri tonne mm-hmm. ak juróom benn li nga xam ne mooy ñebbe ji di fukki bidon li nga xam ne mooy bësi bi di juróomi bidon li xam ne mooy addi yi nga xam ne mooy xaalis bi di ñaar fukki million ak juróom ñaar mu eh, ngi koy nag dolli nag nga ñaanal ko lim man la def waaye lim yéen ëpp na fi njaboot yëpp nag kenn ku ci nekk daal mu ngi ñaan nga bu déwénee jàmm loolu ci différence bu mu ëpp ko liggéey bi nga xam mooy weer yu dëgmal ci koor gi ni mu ko bëggee rek te nga xam moom nga ko digale ñu fas koy ñu defee noonu nga ñaan ko lu ci defoon daaw rek def ko am na yéen pas-pas bu baax jërëjëf jërëjëf ak di nuyoo dongo yi suru nuyoo ngoor lu jàng ca oto ya ñu nga taxaw ca magasin ba alhamdulilah amal nañu mu asalaamaaleykum Moussa mi nekk Thiès day sàkku ñaan day rekk sëñ ah ñu ngi joxe loxo ci jumaa joxe loxo jóg génn amiin amiin amiin asalaamaaleykum wa rahmatulah. Moustapha Seck Baye Fall sang bi. man nga jot lu nuyu sëriñ Amdi Khady Fall bu jaar ci loxo sëriñ Cheikh Khady Fall mi jëriñu kër gi jiite njaboot gi xam naa doyloo rakkam yi ak doomam yi ak magi taalibe yi moo tax mu ne nañ ko yóbbu di xam ne lépp dina jot waaye lépp tàmbalee ci sëriñ Cheikh Khady ak mboolem njabootu Kawsara maam Lamp waxee rek koo sa doog a ay rakkam ak ay doomam ak ay doon rakkam yi fi ay rakkam bàyyi ak doon rakkam ñi nga xam te ay rakkam dañu fee nekk ak magi taalibe yi ak mboolem taalibe yi kenn gisu sëñ bi nag nee na at yi ji mu fi indi da koo séddalee pos-posam ci fas yéene ànd yoo liggéeyal la rek mm-hmm. nee na nag moom ñaan gi ma lay ñaanal te di la ko ñaanaloon di ko santaane ab liggéey ne ñaanal la ko mooy li nga bëgg liggéey ko baax ci te loolu rek sa pos-pos yal na ko ma ne na ko weesu ci jàppal amin nee na li ko baax ci bëgg ci yow di borom Tuuba yal na ko am li nga bëgg ci borom Tuuba yow na ko am ne mi ngi ñaan li nga bëgg ci def yàlla na ko am. amiin na bisam moom bés bëgg ci yéen yàlla na ko am. amiin nag li nga xam te ne moom mooy mooy yitteem. mooy xam na ni yow liggéey sëñ bi dong mooy sa yitte. te yitte nag dafa sori ci xolu borom. nee nag moom dafa bëgg nga ñaanal ko doole ko kàttan ak man. ba lépp loo yitte wóote mu liggéey ca loo xamante ni dina seet sa xol. te yitte joojee nee loolu yitteem te itam jikko sa ndigal loolu rek yitte amul bu dee yitte loolu daal loo yitte wooti na nga ko ñaanal dëpp ko kattan ba mu defal nag loo xam yitte ji fu mu tëddal ci sa xol si nekk di fa dafa def rek baax jërëjëf jërëjëf awat nañ mbégte mu rëy dégg xam na fi mu bàyyi ko mu ni mu ni dégg nañu kàddu yu baax di di nañu jëf ji dégg nañu ko yëg nañ ko bu baax. nee na yëg ko bu baax. sëñ bi nag moom alhamdulilah. nee na sëñ bi nag moom alhamdulilah. yàlla dama ci defal tawfiq. nee na yàlla dama ci defal tawfiq. dama ko gis rek. mu da ko gis xam xam li nekk ci moom muy positif. xam li nekk ci moom mu positif. te positif rek am solo. kon kenn ku ne war na ko mën a seere. mais positif bi nag moom yaakaar nañ kenn ku ne mën na koo seere. mais te moom mii daa am taw féet tam di la di faam. mais ba mu ko xamee rek. la yëgal ni. borom positif bu la. mooy mooy mooy dolli ko suma diggante ak moom. mais loolu nag mooy dolli ko saa su ne ci diggante ak moom. ba ci ak seen jotaay bu baax bi. ba ak ci seen jotaay bu baax bi. mais ba ëpp ci suñu jotaay bu baax bi. mu yónni leen. mu yónni leen ngeen jëmmal ko. mu jëmmal ko mu defe ko nii mu ko def. mu defe ko nii mu ko def. mbokk yi taalibe yi mbokk yi taalibe yi ak njaboot. gis naa ko bu baax a baax. mais loolu gis na ko bu baax. réer na ci moom lool. ñu réer na ci moom mi lool. mu koy seere sëñ Tuubaa. mu koy seere sëñ Tuubaa. mais xolam sedd ci moom. maa ngi leen maa maa ngi koy seedal ñëpp. léegi moo ngi ko seedal ñëpp. fas yéene ko def ab soññ rek. ñu fas yéene ko def ab soññ rek. ci wàllu positif. ci wàllu positif. wàllu taxawaay. wàllu taxawaay. gën a fëttal sama laxasaay. ñu ngi gën a fëttal ak laxasaayu moom mi rek. mu ngi fas fas ku yéene ànd ak moom rek. ñu ko seeral bu baax. ñu ko seeral bu baax. tamit ku gërëm na ko. nee na xolam seet na kuy. nee na yaakaar day doon ko ci moom. am xelam it di gën a dal ci moom. muy gën a dalal rek am xel. ci liggéey bi. nee noonu rek la def. jërëgën jëf. jërëgën jëf. waaw waaw waaw. amiin amiin lépp fa tabarakallah xel dal na ci moom xel dal na ci moom de xol sedd ci moom bismillah ñun ñëpp nu waa ci maa ci ñëw tamit amiin